lu ñuy wax investisseur moom moom la aujourd'hui xëy na sportif la mu ngay jongante ak yooyu mais am na koomam bu mu denc boo xamee ni yaakaar naa ni war na ko defar ba nga xamee ni que moom muy moom ak ñi ko topp ci moom ak ay ay ay ay descendant am yëpp mën a dund donc loolu moom mooy nga dem di investir donc investisseur la xëy na fi mu investir noonu peut-être xool na ko bu baax na ni que fii mën na fi jëlee dara moo tax mu dem fa kenn man de ci man waruñu ko wax dara côté boobu kuy investir yor sa alal amoo dëkk fi mu nooyee rek ngay dem donc mënuñu wax dara Sadio Mané nañ ko bàyyi mu def lu muy xalaat xëy na am na équipe bu mu àndal bu ko conseillé bu ko ne fii nga war a demee mais ñun ñu ngi koy ñaan man bu dee mu may déglu bu dee mu ñuy gis ñu ngi koy ñaan bu dee am na tamit lu mu mën def mu jéem a xool fii club yi ñu mu ñëw jëm a xool nu mu ciy duggee mais balaa boobu livre bi mu ngi koy laaj tamit club yi dafa am lu ñu war a tëddee tëdd boo xamee ni boo ñëwee am 10 pour cent 10 000 francs nga dugal ko ci club bi da ngay nekk investisseur minoritaire